waxuñ ca dara ñoom kay démb nag dañoo daanu ba wëndeelu ca place de la nation laa la wax arritali waaw waaw parce que mbir mi démb day la ko taxoonu jug waaw indiwaat nag esprit M23 googee mooy lan yaatal lu jëm ci wàllum ak ak yelleefu doomu aadama yi lée ak liberté yi waaw te mbirum politique kon ca bokk yéeni kaay déeme jaagi ne waaye malheureusement waa nguur ga démb day saddalee a dugg waaw parce que la ñu gis waa kër Macky Sall yi dem démb day ay mbumbaay laak rumbaay xumbaay folklore waaw manifestation politique politique seen nag di wane sa leader te moo ni laataa ñoo commencé day ñoom waa nguur googe ñoo doon tuumaal waa M2D ay sàcc lañ usurpateur dafa ne waaw yàlla day au finish seetlu ga kay mooy waa M2D ak waa nguur gi la leen taxoon a ju comme yàlla ak yàlla yi ndax waa nguur gi day mobilisation njaga njaay guerre des pancartes ku ci nekk di wane sa leader luy xeetoog M23 googe defuñ ko démb ca place de la nation déedéet waxuñ fa tamit wàllum troisième mandat dañ ko fiy tere waaye bu dee waa M2D waaw troisième mandat bi lañ fa doon wax ne du fi amee dañ ko fiy tere constitution bi la duñu nangu kon ku ko am nañu ndam ci seen mobilisation ba de waaw waaw ba pare tam nee nañ troisième mandat bi la dañ ko fiy tere du fi amee vox mobili ne 23 juin tey ñaari mobilisation waaye ñaari gis yu bokk laa la wax le témoin yéene kaay man nag su ma doon arbitré dama naan dañoo mat suñuy diggante nguur gi la ak opposition ba waaw enquête yéene kaay ne waaye defante nañ nag defante nañ ba mu saf sax parce que professeur Babacar FDS ah, nee na duñu xaar mu conseil constitutionnel déedéet li koy saafara daal mi rek la rue mbedd mi rek <laughs> maa ki dee na sul nañ maa ki dee na Macky dee na sul nañ ko waaw waaw laas démonstration de force day ah Doudou Ndir M23 waaw nee na Macky Sall daal ñaxtu yu bëri yoo xam ne M23 doon na ko ñaxtu day darkalla darkalla kon daal dina koy saafara day da la Déthié Fall ci Dakar Times waaw nee na Macky Sall mi la kon dafa la jëlaa lay wax nii boo ëlbatiku lañ ko doon doyee defu ko man Déthié Fall nag la may sant opposition bi de mooy askan jaax na ngeen booloo nekk benn te jàpp ne élection locale yi lée mooy premier tour élection présidentielle yàlla la wax yow Macky Sall lan la def ci réew mi droog tàngee ndóol gée ngi ci réew mi ba maari di taali Macky Sall di mobiliser laa lay wax nii lambar lambar yi fu nekk mu daal di fay dem te fu mu dem du fa teg dara ba dara booloo jeex laa la wax faalewul population bi laa la wax man de ca faal maa ko wax peuple ba day waaw nee na te Macky Sall ak ay yeewute muus gis nga jamonoy M23 ba 2011 maire gàddoom la doon yenu ñëw naan pare naa pour dugg kaso ñeng ñeng patiti patata bu grenade dañoo warul nangu benn nit rek bëgg jël réew mi en otage Ousmane Sonko ci info yéen kaay waaw nee na wi préparé leen xeex préparé leen parce que Macky Sall mu bëgg a bañ dana jóge nguur gi laa wax xam nga ne bu ñu demee ba président de la république di wut ay nervi police ak gendarmerie nefi mais loolu musiba mbaaba kumba la bas ne xeex dëgg bi xam na kañ weeru septembre bii di ñëw la bu na ngeen waaj te xeex boobee lu mënul ñàkk laa man Barthélémy leen ko wax bi yoon nag du am atte bi du am atte de xeex rek Babacar Diop moom professeur FDS waaw nee na ngeen nekkoon démb ca place de la nation gëlé ay comploteur ñoo fa ne ay traître de ay warkat ñoo fa ne ay sàcc fa ne ak ay tapalekat usurpateur réew mi quotidien M23 ga day waaw ñoom sax seen ndaje mën na mujjee neexul de daa jekki-jekki ay xuloo Abdoul Aziz Daal ci Sud Quotidien waaw nee na moytu leen ay waay foog safara si lee suñu réew xamul woon lii de arrêté di foog safara si bëggee dégg waaw ci farata gi ci boppam kon lañ war jublu de mooy ñoom ñaar ñëpp nag njëg laa ngi ni lée yokku na ba maara di taali wayu gi nga xam seetlu nañ ko ci waa kër docteur système sanitaire ba doy na waar njàng meeg njàngale mi lée ngi nii lée demul dikul mbay maa ngi ni lée di sukuraat suñu industrie yaa ngi ni lée daanaka dee ay junni junni ci ay liggéeykat ña ngay sàkk kon ñu fay leen seen ci ay société yoo xam ni kon tas nañ ko